asalaamaaleykum mbokku internet yi maa ngi leen di nuyu namoon naa leen maa ngi leen di baal ax di leen baalu ax di leen ñaanal yàlla gudd fan ak wérgu yaram ñu fekkee tabaski ji ay at yu bëree bëree bëree bëri maa ngi sama kër di ko feetu comme sénégalais yépp mais ma am lu ma seetaan ma am ci lu ma naxari loolu muy discours imam bu grande mosquée bu Dakar man de dama jàpp ne ak imam du n'importe qui moom mooy doon imam du n'importe qui moom mooy doon imam rawatina ñu ne yow yaay imaamu grande mosquée bu région bu Dakar nga jiite lu rëy askanoo ci xeet bi ñuy wax ay lébu man ma nekk lébu ci sama yaay nekk tukulóor ci sama baay mais askanu lum dinañ leen xeeb ndax waxu benn doomu aadama askanu lumm dinañ leen tooñ ndax waxu benn doomu aadama mais dama wax ne imam bi li mu wax moom la engagé engagé wul askanu lébu te imam bi bu dee am na ay doom bu dee am na ay mbokk nañu ko woo ñu yedd ko ndax doxalin bi mu doxal tey ab imam de rawatina nitu diine du yëkkati kàddu yu amul benn orma ci teewaayu ki nga xam ne moom la ñuy wax président de la république benn rek laa si jàpp mooy bi mu ne bu ñu reyee xar yi ba pare ñu bàyyi président mu wax li muy wax xool leen wax jooju ñu bàyyi président mu wax li muy wax wax jooju rek ñàkk respect notoire la ci njiitu réew mi son excellence Bassirou Diomaye Faye imam yow yaa war a njëkk nangu dogalu yàlla nangu dogalu yàlla mooy nga nangu ne waa Pastef ñoo gañe réew mi nga nangu ne président Bassirou Diomaye fay muy neex ak muy naqari mooy président wu bépp sénégalais te dara féete ko kaw ci réew mi te fu mu ñëw dañ koy jox cëram ba mu demee Touba Serigne Mountakha Mbacké xalif général des murit sëriñu Tidiane yi dañu ko jox cër bu rëy wax ko wax ju rafet yëkkati ko jox ko wàccuwaayam ñooñu nag ñoo la ëpp dara ji ci réew mi fukk junni yoon kon imaam imaam imaam imaam tooñ nga askanu lébu man dama bokk askanu lébu moo tax ma yëkki sama kàddu imaam day respecté kilifa imaam day nekk exemple imaam day nekk référence mais dafa mel ni réew mi dafa am ñoo xam ne ba léegi ñaan dafa leen jàpp ñu am problème pour nangu ne soo son excellence Bassirou Diomaye fay moom mooy le président de la république du Sénégal loolu nag ku ko nanguwul ah nanguwoo dogalu yàlla te ab imaam dëgg day topp li téere yu wax teg yoon nit ñi ci yoonu mu mustaqim di wax wax ju rafet mais imam bi saabu yëkkatee kàddu ñu xeeb ko kii dañu ko war a folli grande mosquée bu ndakaaru dañ ko fa war a folli parce que communauté lébu kontaanuñ ci moom tooñ na communauté lébu na wax waxam te bu mu ñu tudd ñun lébu yi maa ngi leen di sant